yesaay yesaay salaamaaleykum salaamaaleykum partout dans le Sénégal di leen bëggee di leen safoo di wax félicitations à nos lions félicitations à notre président gis naa ko démb mais nag da nga waroon daw yëngatu ñe da nga xaw calme trop président da ngay yëngatoo xam nga biiju gars yi xam ni voilà comme ça troisième mandat bi yomb alors di féliciter boy di encourager tamit euh, surtout euh, euh, équipe Burkina Faso ils ont très bien joué machallah affaire bi jaax na yoon fair play am na ci c'est ça le football fair play dafa am ci football fair play ni mu amee ci amour ñaar ñu bëggante noonu la amee ci football. Mm. alors ñu présenter notre émission takkusaanu mbëggeel di ci ànd ak suma sister bi nga xam ni vraiment mooy la diva adorée Sophia Thiam gëm boppam nekk xale bu extraordinaire nee na leen xale bu loxoom setee rek mu mën a bokk ak mag mais bu loxoom setul salte <laughs> na raxasu dem tëddi alors so comment vas-tu la diva. namm la bëggee la. rëbëgg sargal la teral la. waaw ma bàyyi la nga dugg ci biir yow sama frère nga maa la bëgg. <laughs> yow ñëpp la bëgg di la nuyu. góoru laay waaw waaw góoru laay xam naa mu nga toog instant di xaar dédicace am <laughs> ñu ngi koy nuyu ak waa këram yëpp di leen mhm. nuyu encore une fois mhm. jeudi 3 février 2022 di am mbégte ak contentement à chaque fois nuñ koy defee ci seen émission mhm. Takkusaanu Mbëggeel ñu ñëwati encore une fois ci beneen facette waaye nag di féliciter comme ni nga ko waxee doon jeego nos braves lions macha allah démb moom Sénégal ñëpp a kontaan ñun lii rek lañ leen ñaanal lii rek lañ leen bëggal muy ndam di ñaan incha allah final bi nga xam ne moom lañ dëgmal dimanche surtout ñu daal di jël li nga xam ne mooy coupe bi rek daal di ñëw féete si li nga xam ne mooy euh, final bi incha allah au Sénégal fois yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di ziar kilifa diine kilifa aada ah di leen wax encore une fois mm-hmm. bienvenue dans votre émission Takkusaanu Mbëggeel gu caace oui Takkusaanu Mbëggeel warul yomb benn du mën a yomb parce que xam nga yow dañoo bëggante waaw waaw très bien a xam nga faa faa boolewoo ko ak dara yow. mais loolu yàlla def loolu. waaye li ci gën a neex ba daak cee neex. Mhm. man dama bëgg sama yaay dama lay baa nga introduire ko. très bien ah. notre maman chérie adorée mi ngi nii tey ñu dalal ko sur notre plateau. muy ku mhm. exceptionnel. Mhm. ku am expérience. ci amour ku am expérience ci mbëggeel ku am en plus expérience. ci waxinam. Mhm. waxan waxam set na sell na rafet na te elle est trop trop trop mhm. bëgg nañ ko muy suñu maman chérie mboojo mère Mbodjo Mbaye. Mbaye ñu bàyyi la nga nuyoo ak sa yëpp a ngi lay seetaan gën a xam ne du yomb. <laughs> Ah! man ni nga ah, ah, ma toog. fi nga toog waaw yi neex na ba <laughs> yaa ngi nuyoo dugg si dugg si bu neex. Mhm. macha allah di wax ni émission bi da nga war a firi. kon maa ngi lay ziar bu baax. yow sa naturel ci buntu bi la. Mm-hmm. ni ma dugg see ni nga ma dalale. macha allah yaa gën a may fit maa ngi lay bu baax. sama taw bu jigéen bii nag. Mm-hmm. nga xam ne tarkaala moo ma invité. Mm-hmm. gën maa may tamit doole ni ma mama def ma yaayam nag. yaay sama taw ah. ñu doon ay ñaari jamaa noir ba pare nuroo. <laughs> kenn di waaye mi ngi waaye bu sant yàlla julli ceenante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur. waaye ñu ngi wax jërëjëf ci Serigne Touba. waaye maa Fall yëpp di bu baax du nuyu nag waa TikTok sama mbokk liveur yi maa ngi leen di bëgg bu baax di leen nuyu <laughs> eh tey maa ngi ni Sarah waaw waaw ah. eh, la Mbodja waay. waaw waaw maa pare ngeen. waaw pare na. alors <laughs> bu waxee sénégalais mhm. li xam ne mooy conseil mhm. mu ko waxee. Mhm. dañu koo voilà gis naa loolu alors balaa ñuy dugg ci moom ñu euh, féliciter weef mu ñu gunge ci émission bu extraordinaire bi takkusaanu mbëggeel te y a d'autres sponsors yu may contacter boobu ba léegi bëgg dugg mën leen euh, numéro commercial bi mu ngi nii ngeen jël ko 77 675 70 01 alors boo bu fekkee euh, jël ngeen ko rek alors ngeen contacter ñu directement am na tamit ñiy def vidéo les ñi bëgg seen jëkkër tagg seen jëkkër dinañ def vidéo bu extraordinaire euh, voilà voilà dinañ ci ñëw ok alo Mbodja gars yi ñu ngi ci yow ah. lu ñu bëgg noonu. ñu ngi ci yow gars yi daal nee nañ ñu ngi ci yow alors yeah di joxe numéro TikTok vidéo bi voilà aha numéro bi muy 78 euh, 463 34 15. mooy numéro bi nga xam ni moom ngeen di woote eh, def ci whatsapp bi vidéo yi envoyé ñu ko ñu mën ko partagé ngeen ñëpp jot ci alors so lan mooy deal bi tey waaw euh, waaw wéeb dañ leen remercier encore une fois oui dañu am lu spécial loo xam ne dañ ko dëgmal bi mhm. te du premier au février incha allah wéeb da offrir un week de rêve pour deux très bien ne week-end de rêve pour deux jëkkër ak jabar tubaarkàlla macha allah wii da leen may un bon week-end mhm. au Radisson Blue. ah foofu sama kër sa kër googu nga xam ne boo fa duggee yow moom macha allah xam nga neexaayu Radisson Blue. macha allah wii da leen may ci li nga xam ni mooy week-end de rêve. Mhm. alors da ngay profité ci loolu noonu rek. ñu di lay defal un dîner gastronomique. Mhm. Euh, d'une séance de spa. Mm-hmm. Euh, également une nuitée dans une suite. en oh. brunch xam nga foofu moom nag oh. macha allah. foofu daal man j'aime bien ci suuf. hôtel de rêve la ci suuf. wetu piscine bi ah. à côté de la piscine waaw waay. <laughs> en boo bëggee li nga xam ne mooy bokk ci li nga xam ne mooy gagnant yi mhm. da ngay gën a effectuer li nga xam ne mooy transfert yi te loolu daanaka boo koy def danga koy def ci ay boutique mhm. ay pharmacie également ak ay restaurant te loolu noonu euh, li nga xam ne booy mën a def say envoi di nga mën a participer ci li nga xam ne mooy tirage au sort bi nga xam ne mhm. ñu ngi koy dëgmal di premier au 12 février incha allah ak waa Wave payez vivez en Saint-Valentin de rêve. aïe aïe <laughs> voilà ngeen ko mi ngi noonu sofia leeral na ko alors que ñuy gën a féliciter waa Wave. Mm-hmm. alors soo tey sa gan gi moom fu mu fete alors tey Mbooja Mbaay lañ fi indi tey. Mhm. te buñ nee Mbo Mbooja Mbaay euh, ñëw ci li nga xam ne mooy émission bu mag bi tàkkusaanu mbëggeel. waay tàkku tàkkusaanu mbëggeel daanaka ba mu dooree yàggul. waaye fi mu toll nii sénégalais yëpp a ngi toog di ko xaar. ndax à chaque fois rendez-vous lay doon sur la 2STV. moo tax ma fay sama téléphone. xam naa loolu dañ lay yëngal fi mu toll nii nag dëgg du ne yaa yor réew mi de jeexal. nañu woote nañu woote rek incha allah numéro de téléphone baa ngi noonu. Mhm, affiché wu dañu dañ koy affiché léegi tout à l'heure tey ñu dalal fi Mbooja mhm. yaay Mm-hmm. yaay ku ne xam na ni mbooja mbaay dafay faral di wax ci li nga xam ne mooy ci sëy mm-hmm. waaye buñ nee sëy dañuy wax li nga xam ne mooy union mm-hmm. dañuy wax compréhension waaye dañuy wax li nga xam ne mooy jàppalante ndax dañ ne sëykat léegi nii buñ ci jàppul dara du baax te dañuy soxla sa genre yi nga xam xam ni ñoo yor xel bu sell wax tax na bu ngeen waxee ñun ñii dañ leen di mën a déglu ci li nga xam ne mooy conseil lan fan nga mën a fël ci li nga xam ne mooy début sëy yaay parce que dañ koy njëkke sax ci relation xam nga man moom. ñëpp tënk nañ ma ci nii sëy laay wax. waaw te noonu laa doore nag. tey ba ma ci doore tamit gisuma ci mbetteel. ndax sëy yi defaru bari na. te xale yi bañu ñu miraam ñu xamul. ku xamul nag. loolu tax dañu naan bàyyi mag cim réew. ndax ku la jiitu cim nekk da won fi lampe bi ne. la te xale yi mën nañoo bëggante lool. ak ko ñoo fonk mbëggeel nag amul bii. dañ koy yëg dañ koy dund dañ dund ni mu leen neexee. te amul seen problème sëy bi. sëy bi mooy seen problème. mais la yaay la mooy problème mu sëy bi. doon jéego luy problème bi parce que ngoro gi. Mm-hmm. temps bi muy laaj. Mm-hmm. liñ ci waroon a dund. Mm-hmm. ci sëy bi lépp da nga ko investir ci ngoro gi. te xale yi dañoo umpale ni sëy ak ngoro du ñu benn. dëgg la. xanaa xamoo ni ngoro. dafa neex surtout ni ko xale yi di dundee. dëgg la ñu sax suñuy temps da nga daan yor la. toog si nga toog ñi ma woo seeti góor. ñi ma woo gis góor. su la góor di boo bëgg naa dalaan la. Mm-hmm. <laughs> su ma sañoon moom suñu ñaari xol yi. peut-être <laughs> eh, eh, eh, da ngay tiit da ngay tiit waaw booy doxaan da ngay tiit. yow gaaw mu ne la. sa xol bii su doon bu doon garab. Mm-hmm. Mm-hmm. sa xol bu garab sama sama xol bi laa koy roosee xaw ma daan nañu ko labate ñu bu ko defee nga daal di commencé def nii nag parce que boobu tamit yaa ngi ni siiw ku la nopp boobu xumbal dafa amoon fuural fuural temps nawetaan yu jël paan teg ko ci biir ci biir kii bi ci boobu góor ñi daan ñëw di seetaan boo jigéen moo leen andi woon waaw ak gumbe yëndu si waaw te ñun boobu li daan sol di fecc mu noo gis pooj waaw dama war pooj ba sonn gis waaw c'est <laughs> naa ba tas waaw ma la daan def ngoo de <laughs> barke Muhammad bu ko defee nag man lob naa kii xaw ma nu ma koy waxee léegi digsi bi moo koy may ci laa koy wax fekk su nobante bi moom fi mu toll may xool. waaw xoolu. dama laa ko nopp. mais du ñi may wax. parce que góor yi njëkk yi ñemewuñu woon jigéen comme nii. Mm-hmm. te ñun tam ñemewuñu woon. góor. Mhm. amuñu woon sax fitu yaay kii laay bëgganteel. Mhm. balaa ñu koy wax dañuy am problème boobu. léegi bu ko fee ma may dix bi may ko sama góor. Mhm. waaw santos ci nag mu daal dugg si daal di gaa yi daal di arrière nag gaa yi ñëw fekk si ko. <laughs> mu xam ne boo am na ci moom cofeel. te du tax dis du tax jege yanto am distance day am. distance day am ngoroyanto bu rafet waaw ngoroyanto mhm. boobu daan na tax góor bu takkee jigéen mhm. daf koy jox cër merci mhm. parce que boobu li gën a cher ci jigéen lay fekk ci moom mooy kumpa am góor dafa dañ kumpa merci mooy virginité bi dëgg la comprendre nga waaw góor dafa dañ kumpa léegi nag kumpa <laughs> boobu ci jigéen daf koy jaral lu nekk pour mu am ko te boobu sax góor daawul xëccu yaay kii laay takk far force c'est très rare c'est très rare kii bu amee ci man cofeel dina ñëw wax ko yaayam mu ànd ceeg moom. waaye day dem gëstu ji baayam. waaw gëstu xale bi fu mu bokk. xam fu mu bokk. exactement. xool ndax Mbodji ak kii mën nañoo ànd. wala mënuñoo ànd ñu daal di ànd. kii jël la ngay xale bu ndaw. Mm-hmm. mu jox la sa gëdd. Mm-hmm. temps yooyu laabaan suba teel amoon na. teg la sa cër. waaw nga gis ñu samp ndënd mi. Mm-hmm. géwal bi jël ndënd mi. suba teel. Ah. oto bi ni pii papa sa borom kër moo lay jël. xale bu ndaw ba pare. tëdd ci sa kaw jooy xam ne xale la jël. Oh, wallaahi moo tax ma ne leen def naa ko vidéo bari ki démboo wallaahi gis naa ko jël jigéen tay tay tay yegg ci moom tay tay c'est faux xale bu ndaw c'est très rare. c'est faux amul dëgg la dëgg la su boobaa boo bu jigéen bi ngay xam ne kii xale la mm-hmm. Mm-hmm. sa jëkkër jiital laa ki mbokkam sa bàjjana lay sang. Mhm. jox la sa borom kër buñ paree jiital la. kenn du la wër lu bokk sa yaay du la jege. parce que thème mu jege la sax ñu ne kii. dañ koo foog dañ koo foog ndaw gi sa yaay sa bàjjan. Mhm. gis nga bàjjan ñu génn ci sëy mhm. mooy bàyyi. bàjjan mooy bàyyi. bu nga ah, xam ak yu traditionnel yi sax. tout à fait su boobaa daan tëgg sabar dañ daan déglu suba googu. taj gin rëng rëng rëng. waaw waaw. rëng rëng rëng. wallaahi booba woote nañu. booba ndënd bi day fort. bi lay jël. barke Rasulullah dara du ci riimew. du diis. Hmm. bu ko defee géeyo ba sar xolle. Hmm. tarkal la xale bi kontaan. ay moromam kontaan ndekki li nga ndekki sama kër yow. Hmm. da koy fay. jom jooju la lay yokk yii. lii moom jar na tee sa bopp. dëgg da lay may courage dëgg la bopp pour ëllëg ma tam ma am lii. wallaahi dëgg la mais jamono tas. tasar. mais tas ci jigéen ñi la gën a metti maa la ko wax ndax li yàqu ci ñoom la ne. Mm-hmm. exactement. mais lu lu yombalal léegi tas yi yaay booy. lu yombalal tas yi dafa bari. Mm-hmm. parce que ñun suñuy jamono bëgg-bëgg yi bariwul woon. Mm-hmm. léegi nag bëgg-bëgg yi bari na. est-ce que du tam dañu def suñu jëkkër yi ay morom. may ma ma bëgg-bëgg yi bari na. xale yi. munoo yar doom tey tey tey xaar ba tey mu bëgg a sëy nga bëgg ko jàngal tay sëy. munul nekk déedéet. dégg naa dëgg dégg naa dëgg. sëy da nga koy travail sa doom. doom bu jigéen yaay day wax ak moom. anytime waay. il faut nga toog di wax ak sa doom gis nga doom am na conseil yoo ko jox ci boppam. da koy dugal dëggantaan yaa ngi dégg mm-hmm. te lu mu téewee sëy da koy xam. Mm-hmm. parce que sol nañ ko ko démb. démb ñun géwal nag loolu mooy suñu problème. Mm-hmm. ñun 10 ans. commencé nañ laa jàngal. te yaay du la rus. waaw lay wax parce que doom bu jigéen fi nga jaar yow fa la jëm si. Mm-hmm. Oh. amul loo koy war a jomba wax. Mm-hmm. Mm-hmm. da nga koy bàkk. xamal fi nga bokk. sa papa nii la man mi fii laa bokk. damaa ragal gàcce. boo defee nii tam ma jaara fii dee ba faaw. xam nga doom daa bëgg ndeyam. bu la nee jaral na ma sama bakkan. mooy arma wax jooju mooy arma da lay jo waaw da nga koy bàkk. doom bu jigéen da koy bàkk di waxtaan ak moom. bañ a def kees seen diggante. surtout parce que tamit lii yaay dañ ci joué bu baax. yaay yu ci bari. dañoo dund tubaab bi di toro ñun dañoo wàcc suñu ànd mhm. ànd ba ñu def nag fa lañ fekk boroom mais jéego mhm. jéego léegi comme fi mu waxee ni léegi xale yi léegi en fait euh, seen yaay yi dañ leen tàmbal lu yomb loo xam ne tey euh, surveiller tuñ leen mhm. conseiller tuñ leen ba tax na tey xale yi léegi amatuñu heure pour toog ci kër yi te yaay yi amatuñu temps aussi pour mën a superviser xale yi ci yaay day tëral doom waaw muy nelaw suba ba ngoon nga sumb fóot toggal ko jox ko mu lekk muy diw yaramam ba mu nooy nelaw bu Mm-hmm. dara du ko war ci kër gi. dëgg la boobu la jamono tas. Mm-hmm. xale bu jigéen boo ca gis ma nga pose. dëgg la de waaw monté en. <laughs> def lii waaw xef ya <laughs> xef muy wëndeelu. waaw yaa yaay aj la ca kaw. Mm-hmm. sa yaay ngi lay rey. dëgg la bu rëy la lay jural ndax ku la takk munoo togg munoo fóot munoo bale munoo raxas. lu lay doyee dëggantaan dara. jigéen dafa am loo xamante daf ko moom ci biir néegam. loo am am ku la ko defal sa biiru jëkkër bu la ci kenn jiitu. dëggantaan xale yi déglu leen déglu leen jigéen bi muy liggéey ci këram ba góor jël kalpem jox ko compte bancaire am jox ko mhm. ubbil ko léppam yow yaa koy def mënu ñoo fex ba ma ànd ak góor jigéen ñi du ma ànd ak ñoom mhm. parce que damay joxe conseil pour ngay sëy mhm. kon mënu ma naan leen kaay leen sëyeen leen neex ñoom ci ñoom laay dal ba koro may am li ma bëgg mboo jo daguma la foofu dama gis ñaar ñuy sëy di dem ba ci biir di sëy di sëy di sëy sëy bi neex alors euh, Sophia copine faala exemple ma joxe ko sama bopp. man ci biir euh, sëy bi may sëy ak sama jabar aw ma ci satisfaction ma gis Sofia euh, euh, relation bi mu am ak sama jabar di ko conseillé di ko conseillé te la mu koy conseillé sama jabar du def loolu. àdduna di dox ma tourné takk Sofia. loolu est-ce que mën na nekk. mën na nekk. ndax lan foo ko teg. mais xam nga lu tax xam nga lu tax mais man Sofia su doon man Sofia moom bu ko mara naan tax mukk tax naan petit. xam nga tamit lan mooy mi. Mhm. sa jëkkër. dëgg naa dëgg boo ko këmm kaayee nii. dëgg la Sofia du ci am. du xool keneen lool moom am na moom. Mhm. am nga lii base du sëy bi. Mhm. déglu mooy góor moo bëgg lu neex déglu leen Mbodia Mbaye. waaw surtout man exemple déglu lu neex. déglu leen Mbodia xam nga góor neexaay bi déglu ma tuuti. ay science bi du ci seqante ak sama rek. neexaay bi mi ngi ci lekk joxe lekk bi neexaay bi mi ngi ci adorable bi neexaay bi mi ngi ci na ngay tegee ànd bi. ci wax neexaay bi mi ngi ci defee say say nocc say jaljalil say say jay say ñafal dañu. déedéet déedéet tuuraay yooyu nga xam ne bu ñu la ko waay neexaay bi nga ni noo ko gën a noo ko gën a mën a waxee. jéego laa bëgg. def ko nii taf ko. Mhm. sa bopp. Mhm. dama lay xool ndax kiif nga moo tax ma la jëkkër boo koy xool ni ngay mhm. da ngay aj neegul aji da ngay biiju da ngay biiju da ngay biiju dafa am regard ma lay xoolee. bokkut ak bi may xoole kii dama laa ndob. déedéet góor da nga koy bàkk. day feeñ. dégg naa même boo koy tegal ñam sax am na noo koy tege. moo tax man la taggaate yi xale yaa ngi sëy te xamuñ seen i borom kër. dëgg la bañ a rëy ci seen jëkkër. ah jigéen du rëy déedéet soo xasee ba sëy mhm. pare nga ah. yow amatoo fenn soxla sa borom kër nga war a visé mhm. moo la war a ñor ah. parce que doom ju baax du ay caaxaan allahu akbar man de gërëm naa sama jabar merci faa doom ju baax du ay caaxaan moo koy jur mhm. il faut nga gëm sa bopp sa xol bi toj moo tax bu sa xol bonee mënoo jonge mënoo sëy oote leen ubbi nañu antenne bi ah numéro yaa ngi affiché participer leen c'est très important boo rëyee mënoo sëy waaw soo nayee lool mënoo mmh. sëy boo yaradu ko wee mënoo sëy soo ñàkkee kersa mënoo sëy surtout ñàkk kersa bu la dara safut mënoo sëy boo siisee nag waaw boo siisee gën a bon kon sëy nan moo koy gunge si sa mmh. àdduna ngeen ah. def am continuité yéwén yéwén déglu leen xale yi ak mag ñi sax mag ñi xamul dara déglu leen pour ngeen joxe exemple kii ci kii di di di jëlee ci moom di jox seen doom am na ñu xamul dara jàmm jàmm jàmm set waaw jigéen da nga war a set. Mhm. moo tax am na kilibu Kumba Gawla bu may gis Kumba yëkkati poxotaan yi ma gis fii set wecc <laughs> ma ne Kumba Gawla set na jigéen da ngay wat sa poxotaan ba mu set wecc wat foo xam ne damay am karaw ba mu set wecc bu la neexee nag am na foo xam ne man nga ko fa baa mais bu la neexee foofu bu ko fa ba bàyyi ko mu ça dépend sa jëkkër mu sëmb jëlal ko ci téléphone bi non bu ne kuñ ko jël may ma fi ma tënk baa <laughs> tëjal dama ko may tëjal nañ la ko jëla yaa ngi dégg waaw set laa yam mhm. a togg mhm. mën a fóot mën a bale. Mhm. ñemee dara yu weex. waaw sama waaw ñemee bagage ci biir néeg. Mhm. di déclarer guerre ci biir mhm. néeg. dakk digg lal bi lu sa jëkkër jox nga delloo ko. daw sax. Eh, waaw li naan góor góor góor. gis nga góor boo ko ñemee ci biir néeg day reculer. Ah. waaw. soo ko jëlee ni ko mën a yow daw ma saala yaay ndeer e day dem ba mënatul day reculer. te yaay fa la bëggee lu di yokkoo de. Eh, nan ko kaay man la. waaw bi paa nag di nga ko jël di nga ko jël. parce que xam naa soxla na di nga ma rek nekk allo. allo dugg si allo. allo allo. allo allo. allo waaw salaamaaleykum. yokkal ma volume téléphone bi tuuti sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. ak nu mu tudd. ba yaa ngi si jàmm bu baax. sant yàlla bu baax maa yaa ngi teewlu waxtaan bi yaa ngi ci biir émission takkusaanu mbëggeel yow noo toogee nii. ah sant yàlla daal. dendal madame wala <laughs> coro gi. kenn. du kenn da nga rek pour participer. oui sant waaw. ñu ngi lay déglu noo tudd ak fan fan nga ñu woowee. Mouhamed Diop. Mouhamed Diop depuis. duggoon na kii ndeysaan. ah duggoon naa Louga ah? Louga duggoon na démb defe naa. ndeysaan mais waa Louga yéen ñu da ngeen mën a sëy de wuu waaw. torop ah. waa Louga Saalum Saalum mu ne. ah. Saalum Saalum ma ne. Saalum Saalum la waaw hmm. mais ba tey Saalum Saalum yi aussi ay sëykat lañ de. waaw bi ci bëggee Baye Diop Saalum Saalum bu mag. mais yow looy xaar pour yow soxna. man. wala am nga. non teel na ko. amagoo. waaw teel na teel na. teel na mais soxna du teel de. ñu mag yi nee nañ. Euh, xale bu góor dafa war a gaaw takk soxna ndax xéewal yi gën ubbeeku. oui c'est normal. ah waa Aïcha ñu bàyyi la nga participer ci émission bi ak Mbodja Mbaye. waaw ah, maa ngi lay mhm. waaw di ñaan yàlla. jërëjëf man moom sama problème daal mooy tubi daal. Mhm. ndeysaan ñu. maanaam yàlla dafa tubi rek barke Seydina Mohamed. alhamdulilah alayhi wa na ñëpp ñaan rek képp di leen. ñëpp ñaan daal xaw ma ci ci ci final bi ah. Mhm. waaw te allah. incha allah ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp entre Cameroun ak Égypte koo ci euh, souhaité mu ñu mu dajeeg ñun incha allah dimanche. man moom comme démb bi maa ah, xaw ma sax li mu wax mais dama taay. Ah, ah ok ndeysaan. léegi yow dala doon laaj diggante Cameroun ak Égypte. kan nga bëgg ah. favoriser bu ku ci gagné mu ñëw tasanteeg Sénégal dimanche jéego dama laa bëgg eh. dimbali ma bu ma rey sarax ma ngir la waaw. non dëgg ku ku baax na. ok kontaan nañ bu baax sëñ bi. oui waaw ku nekk ndax. man moom sa yaay nga bëgg. allo allo. waaw waxoon na ko dem ba nee na yaayam la bëgg amul jabar. mais yaayam la bëgg. dina takki nag. voilà di nga takki. <laughs> di nga mës a takki nag saalum saalum boobu. te di ñu may jàmm ndax di nga takki. waaw Sofia nuyu Baye Diop borom Paal saalum saalum bu mag. boobu Baye Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax borom Paal waaw di nuyu tamit sëriñam. ndeysaan Cheikh Fallou. Mhm. Mbaye borom Ndar. daf ñuy ñaanal di ñu suivre macha allah amiin ak ak xaritam Alika ñaanal ñaanal sa borom kër Baye Diop dinañ ko seeti incha allah dinañ waaw set waaye kii jéego balaa loolu mhm. téléspectateurs yi fi ñu toll ni naa ñu ngi toog di seetaan ndax mbooje li muy ni dafay dugg si xol waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo dend seen jëkkër wala ñu toog dend seen jabar mhm. nañu def seen i vidéo de dédicace envoyé ko ci li nga xam ne mooy 78 mhm. ñu mën leen ko tegal léegi direct sur la 2STV ngeen bàkk seen jëkkër lu neex ngeen mhm. ngir ngeen mën a bokk ci li nga xam ni mhm. mooy plateau bu mag bi nga xam ne waa 2S ñu ngi koy dëgmal le 14 février incha allah allah mais borom mhm. da a xam fi day tax góor gën laa bëgg waaw merci ndax doomi ngay jur boo sant sa jëkkër santee Njaay doomi Njaay la ñuy sant. waaw mhm. du dañ. kon yow boo ñëwee jaay nga sa sant. li ma gën a bañ ci jéeg jéeg buy wuyoo ah. naam wala wii. waaw wala wii wii bébé dan lay woo. gëy mhm. Mbodja Mbaye nga ni caam dogo faale maa wa jël. Ah, Kumba Samba ak yaay Jalor. <laughs> faa dégg nga. oui ma la faa nga ni ma nooy. lébu maa li ma dem ndooy Sëbu Samba ak Alassane dañ ndooy waaw nee naa leen lébu yëpp te ngej maay seen baay. <laughs> waaw waaw waaye jëkk nekk président de la collectivité lébu. territorial lébu leen de. premier commissaire noir. ñëw. <laughs> dégg nga loolu ayca yaay. sa jëkkër. Uh-huh. sangu ba set. cëm nga jël yéeréem. Hmm. tagagun ko ci ànd bi xanaa xamoo ne góor day xeeñ cuuraay. Mm-hmm. Oh. waaw yaay. góor bu xeeñee cuuraay dañuy xam ne jéeg bu pare la bàyyi. waaw dama bëgg cuuraay. góor dañ koy suur. Mm-hmm. ni nga koy nga jël yére bi suul ànd bi ba mu suul ndànk nga jël ay yéeram lonk ci biir ànd bi. def cuuraay lu neex. génération bi cuuraay li xeeñ mat. Mm-hmm. génération bi xamuñu loolu. cuuraay lu xeeñ neex. yaa ngi dégg des fois romb la ni wif. waaw nga naan lu muy xeeñ xeeñ cuur lu muy xeeñ. boobu jeeg bi moo pare. waaw waaw dëgg du deex nga góor na nga koo ba mu nekk xar. ci yow ñu naan la da koo liggéey rek. Mhm. da nga koo nee nañ sama jabar daf ma liggéey xeetu bu baax baax ci la parce que xam nga daal bakkan jàmm la bëgg su ko mënee am. am na góor ñoo xam bu seen poos feesee la ñuy am jàmm. Ah! maa la ko wax du ñu am jàmm. Oh! duñ ñemee dugg ci biir kër gi. say dëgg nag day neex mboojaa ngi nii say dëgg mm-hmm. day neex mm-hmm. sa jëkkër day am mm-hmm. mu neex mu ñàkk mu gën a neex yéen a may a mooy dalal góor jëlal ki ci ligne bi yow lay waxal mbooja tey ci ligne bi allo oui sëñ bi def ah, alhamdulilah yaa ngi si jàmm alhamdulilah barikalla noo tudd ak faat nga mais euh, du Aliou Sall euh, policier mais Aliou Sall euh, ordinaire. dégguñu. man la Aliou Sall. Aliou Sall. Mm-hmm. waaw. ban ci la foo dëkk. mais mais ne. du kii de du Aliou politicien. waaw waaw si ah, xam nañ ko kay xam nañ ko pourtant moom mën naa woote sax de. <laughs> waaw ngi ci ay conseil rek la joxe. Aliou Sall bu Fuuta. waaw. waaw euh, damaa bëggoon participer seen émission bi bu neex bi. macha allah Alioune yaa ci biir ñu ngi lay déglu bu baax. waaw li ngeen wax dafa. Euh, importance. seen euh, li nga madame bi lu mu wax fi yëpp benn dëgg la. Mhm. Mhm. jigéen moom. Mhm. vraiment lu mu wax moom noonu la. xale yu jigéen yi même léegi. Euh, amuñu repère quoi. Oh! Mm-hmm. lu ñu neex lu ñu neex la ñu def. Mm-hmm. dëgg la. faa lu ñu lenn matériel rek la ñu gëm. Mm-hmm. c'est vrai am na ñu baax ba tey. mais xale yi léegi ñu bari yu bari dañoo yàqu. dëggantaan. Euh, su ko defee aussi ma ñaanal euh, équipe Sénégal mu am ndam incha allah dimanche bi ñëw. incha allah amiin yaa rabbi amiin amiin kontaan naa ci yéen trop. ñoo gën a kontaan ci kontaan nañ bu baax a baax euh, maa mhm. euh, euh, ngi ko bandum yow fii sa kër la. nee na ko bandum waaw sama kër la sama mi ni maama. Mhm. <laughs> alhamdulilah vraiment kontaan naa ci yéen. misaal mi bandiraaɓe kala. ñoo gën a kontaan nuyu ñu waa Fouta mhm. yëpp. merci beaucoup merci beaucoup ak waa Wurusugi ak waa dëkk ba yëpp nuyu ñu leen. ok merci beaucoup. Sophie. merci merci merci c'est gentil. jërëjëf allez au revoir. Mbodja. Mhm. Mbodja. ba pare góor est du xale yi ñoo yàkkamti léegi comme ni mu ko waxee parce que da ngay gis tey Mbodja euh, doo xam lan lay def ci këram ba jëkkëram di ko teral. Mhm. tey nga gis loolu ci moom nga ni par la force sa jëkkër na la teral ni moom. est-ce que mhm. du yàkkamti boobu moo tax xëy nag ñuy ti am ay tiraillement xam nga di xuloo ba loo xam ne wax dëgg ci ay matériel yoo xam ne jaru ko. est du loolu. bala ngaa mën a sëy dëgg. Mhm. da ngay doylu. surtout. Mhm. jigéen bu doylu bokkee ci yow. Mhm. dara du fakk sa bët. dëggantaan. te jigéen balaa neex a yor dëgg. il faut nga doylu. donc Sofia yow li nga mën. ak li nga am xëy na man mënuma ko awuma ko. doole yamul. yàlla dafa bind te yàlla dafa bind te yamalewul. te am na góor ñoo xam ne bañu luñ seen soxna dara. dara dañoo amul moyen bi. voilà te tey su ñu amoon. dinañ def ba ñëpp xam ne def na ah, yaay est-ce que xam nga ni sëy yooyu pratiquement ñoo gën a neex ci lu yàlla sax parce que day am jàmm. Mm-hmm. yow man day am communication te day neex dañuy tooñante ñaar fukki junni lan la daan may. ah ñaar fukki junni suñu la ko mayee. mooy ñaata. cent mille cent mille waaw kuñ ko mayoon muy euh, muy téeméeri junni léegi. Mm-hmm. dan la ciy naw andi nañ ko deux cent mille mm-hmm. ak rajo. ngay bàkku la di tëgalu ak rajo te sëy yooyu gën a dëggantaan dëgg yaa ngi dégg léegi un million deux million trois millions. un mois say bataas. ah iPhone. xam nga luy wax ji. Mhm. dëggu moo la tul mbir mi. ndeysaan ma dégg jigéen boo koy wuti doo jiital am-am. Ah, ah. surtout jigéen boo bëggee mu sëyal la mhm. nga bëgg koo natt ki nga war a sëyal takk ko soxna mhm. da koy natt ci côté yaay des fois sax yow mi góor mi nga xam ne yow la yàlla may dara nëbbal sa li nga am ngir mën a ut jabar da nga xanaa xamoo kër yi mag yi ñuy wax tey man su ma doon góor takk ci xale tey yii dama lay takk jaarale gu mag ah. waaw tëj sa xol bu dëbb ko ba mu mook moo soog la faa génne yóbbu la sama kër mais lu tax ñu préféré appartement toujours beru moo tax libéré et éliminer seen goro eh, yaay foofu nag intimité bi la ñuy bëgg nag non xamal da xamal ah, da kër gu mag day toj xol uh-huh. soo fa lu ne di ko mën a gérer dëggantaan ndax amal tax xale tey xaajo xajootuñ seen mbokki jëkkër yu ci ëpp mm-hmm. bee tax ku ñëw dalay déranger mais yaay am na xale yoo xam ne juddoo nañ ci kër gu mag te bu ñu demee ci appartement dañu sëy comme il le faut moo tax la mënoo maase ñëpp ñu ñoo yem mais xool boo jógee ci gu mag delluwaat ci gu mag da ngay gën a mokkal li nga jàng mi ngi mm-hmm. mel nga jàng bu pare de formation pare defaat beneen pare defaat beneen gis nga ni jàng dul mokke noonu la sëy dul mokke loolu moom am na moom par buntu la ci gàttal daal jigéen dafa war a mën a togg mën a accompagner sëy mën a fóot am jàmm mën a fóot am jàmm mais xale du ñu fóot dañuy posé seen wee yooyu ah, eh, ñu ngi fóot nag ñu ngi fóot nag gis nga nag loo bon bon bon bon <laughs> sa jiitlu kaayu borom kër kalason waaw sey say déguisement yow biir néeg waaw xanaa war ngaa mën a toog buddi say wee fetee ko sa bopp dëgg bu ngaa jël mën ngaa jël fóotkat bu lay fóotal nga koy fay xale yi fóotatuñu loolu moom seen jamono lañ tombeel c'est normal uh-huh. tombeetu ñu ñu daan fóotal goro fóotal njëkk di yeewu 3 4 heures du matin di mm-hmm. fóot ba timis mm-hmm. tombé wu ñoog loolu ñoom li leen yàlla jagleel loolu moom d'accord naa ci mais nag toog moom uh-huh. du ma nangu jéeg bu koy kenn lu ko defal mais jéeg xam ne moo jël jiitalukaayu jëkkëram jox jànk ba mu fóot nag waaw jànk yee fóotutul loolu waaw fulla bu ñu amee fulla bu ñu amee fulla du ma ko fóotal kenn xam nga ki jox yàlla boo ci tombé bu foro ki jox jànq bi sax tane mm-hmm. am na ñoo xam dañuy dajale ba mu bari ñu takk ci mbuus mm-hmm. sang wallaahi waaw am na ndax seen jëkkër mën na koo jënd am na ñuy sol am na koo ñu a jàmm de dëgg la vidéo bi ma génn barki démb hamburger sawarma pizza mi ngi rey góor ñi mm-hmm. amuñu yaram da danoo neew yi dëgg la seeni biir leen wër ak seeni lex mais dëgg la jéeg xale yi toggatuñu dëgg la cak cak cik cak ab jeeg da ngay togg da ngay togg di jox sa jëkkër bu lekk ba suur yàq ko di nga gis góor goo xam day yendu xaalis suba ba ngoon dara du dugg gémmiñam këram lay lekk jeeg dëgg la jeeg baa pare dëgg la su ko leeree ne bu demee këram bu ko fa lekkee day toog commandé ñu àndil ko Sofia gisaat naa tamit gisaat naa beneen hmm, mbooja dëggantaan toujours yow boo wàccee sa jabar du la tegal sa añ wala sa reer jànq bon bi moo lay tegal sa añ wala wala sa reer loolu man war nga ci waxaat ci xale yi. barke Serigne Touba xale yi la ñuy sëy man mhm, Mbodja. na torop yaay man dara ma ci neexu. Mhm, dafa yomb sax nag. moo tax nag yaay ñu góor ñi seeni xol di dagg. il faut doomi góor yi tamit nañu déglu seen yaay yi. looloo tax ñu naan na loo xam ne non goro seen xol mu <laughs> doom ju góor. Mhm. mu mën poosam lool. te xoolal ki la jox daw jox dépasse añ. di daw bu reer moo la ëpp jàmm. dëggantaan ñi compale lépp góor ñi nga xam xorom jigéen du leen ko jëndal ñoo la problème. dëgg la kenn toggalu leen. kenn fóotalu leen ñu ci ëpp kenn lijjantiw leen xëyal ma xëy ñu wàccandoo su ma ñëwee ci ci si dugg ci biir douche mi laal ndox ñëw cag-cag bi ñëw lekk ñaari kuddu dàkk sa kaw lal téeb sa connexion ba sa jëkkër mu a mbatt mbattaar hmm. xoola déggul sa t'aime déggul lente lu mu andi nga yàq lu mu ñàkk nga jooy hmm. xale yii ni ñuy sëyee dañoo jàngat sey sëy xale bi ñu changé sëy ba léegi la sëy yàqu yàqu na waaye xale góor yi kat am nañ ful la ndax bu ñu gisul loo xam ne ah, ah, gis bu ñu xam loo xam ne gisuñu ko dañuy wari ñaareel mais moo tax takk bi mel ni tulleeg ñaareel bi sax a tane mm-hmm. taman li ma gën a métti mooy jigéen ju tale ba ñu xëy ni la bu xeetal mbooja mbaay mhm. day soog a góorgóorlu kasara masara ay mbooja mbaay bu la fekk laa ilaha ay bu la fekk xale yu ndaw yi ay bu la fa fekk jantal mais ni xew lii am na ñu yeewu ah. léegi ci xale jigéen ñi de su la takkee xale bu ndaw nga bëgg leen a rey ci biir kër gi ñu dem takki mbooja mbaay mu pare ah. waaw <laughs> eh waaw da koy riita mballe ba mu ne daaru lu mbéjee nii de xoolal kan riita mballe ba mu ne ah. xoolal leen rek ngay tërëf ci mbedd yi hmm. daa liggéey sama jëkkër da koo nangu kenn liggéeyu la yaa liggéey sa bop yaa toogoon ni yàcc ni mbaxalu soleil mboo di ñëw dominé la waaw góor ki ko gën a def nii dumbe jeng xale yu feres yooyu boo dee jéng mënul ñàkk il faut maam waaw parce que fii neex bokkut ak fii ma <laughs> waaw yaay xoola xale xale télé xale tubaab journaliste yi ñu ngi may étiqueté de seytaane xale ñoom dañ bëgg lu yow tubaab laa gën ñoom a a génn <laughs> tubaab ba ci ko ñuy tubaab tubaab <laughs> sooy tubaab tubaab lu def ko comportement mais boo duggee ci kër gi sumil say talon sëy sëy bi waaw sëyal sëy bi góor mënu laa jëlal appartement ngeen ko dëkkuma ak sama yaay voilà yaa ngi dégg sa yaay daf may déranger dëkkuma ak sa yaay nga jël ko dugal ko ci appartement di fay cent cinquante mille mhm. ñu lay écarté ak sa yaay kot ñu lay écarté mu naa sa yaay jii daa bëri wax waaw daal wax dëgg écarté la ak sa yaay xañ la ko écarté la ak sa yaay sa yaay toog di jooy loolu mhm. pareegut bu ñëwee sa kër du lekk mhm. am na góor ñoo xam ne xar lañ ci rey guddeeg bëccëg seen firig mooy mais duñ ci lekk duñ ci naan parce que jéeg ba ko toggut bu sa yaay ñëwee ci ko man maa dem kër goo xam ne hmm. yaay ko góor ki bi muy ñëw daa woote hmm? mu ne ko ah. da sa yaay di ñëw heure bii waaw waaw waay man de man parewu ma ko aw ma fu ma ko kii ku góor ki di ko walaax sama yaay damaa xamul lan lay dox heure am na góor ñoo xam ne jur leen loolu faiblesse la yaay jur leen barke Seexul Xadim toog faiblesse la loolu faiblesse la faiblesse la loolu dinañ ci ñëwaat léegi euh, loolu tegal sa loxo foofu muy nekk à suivre ñu dem xooli position Khadija. li mu euh, dox tey ci journée bi ak li mu ñu indil. Mhm. voilà bu paree rek léegi après ma def leen signe ngeen indil ma ko xaaral après. Mhm. Euh, ma def leen signe. Mhm. ñu war leen mhm. alors ñu ngi joxe toujours numéro bi nga xamante ni mooy numéro vidéo yi euh, Sofia joxe na ko léegi. Euh, def vidéo tagg sa jëkkër. def vidéo tagg sa jabar. wala wax ci sa yaay lu baax ñu affiché ko léegi ngeen envoyé ñu ko par WhatsApp vidéo bi. ñu tegal leen ko léegi mu nekk lu extraordinaire. ñu 78 463. 34 15 ah. numéro commercial bi pour mën a participer ci émission bi ñuy wane say produits incha allahu rabi mooy 77 675 70 01. très bien Mbodja man dama am jabar sama jabar li nga wax nii yëpp da koy def macha allah set na ma léeg-léeg sax maay salte parce que damay bàyyi sama karaw yi <laughs> mais fii rek laay bàyyi quoi mu sax am na boo xam ne moom anytime dama koy. dégg nga bàyyi <laughs> <laughs> bàyyi mu sedd. alors léegi man bu ma xëyoon xëyoon rek takk ñaareel am naa ci droit te namu ma dara nag manqué wu ma dara. mën na togg set na am na yar am na diine. te jéego waa ji mi ngi waxaale soxla am faa ah? armé wul <laughs> yow yàlla lañ ko daganal. Ah, ah. benn ñaar ñett ba ñeent. Mhm. takk benn jabar taxul sa aawa bon. Mhm. ndax jigéen ju fa am ñaari jëkkër coolu topp la. ndeysaan. nekkul sama aaw dafa tële. ba tax ma takk ñaareel. am nañu seen aawa complet. Mhm. mais takk keneen teg moo gën war di foofu. waaw yaay nag des fois loolu moom d' accord nag. waaw waaye des nag sa jabar dina mate boor yëpp nag foofu moom soxlawul. Mhm. pour lan alors pour lan. <laughs> ah dëgg du neex nag soxla eh, eh, Khadija mi ngi lañu dañ leen woon di ji <laughs> njaboot gi sax xeetu Seydina Muhammad du yomb. maa yow xuloo baa ngi ñëw foofu. xuloo baa ngi ñëw takk ah, ñu ñëw ñu euh, la fille ñu xool tey lu mu ñu indil vas-y Khadija comment vas-tu Goutiaché salaamaaleykum Don Diego le milliardaire saoudien maa ngi lay nuyu di la bége di la ziar Chérifa liggéey bi rafet na yaa ngi doxal mi ngi nice maman Mbodja ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay béggee aussi mm-hmm. ah, am mbégte ak contentement ci sa teewaay ci plateau bi ñu ngi déglu conseils yi nag ah mm-hmm. conseils yi moom xale bu jigéen bu ko déglu boo amagul borom kër léegi nga am borom kër incha allah ah bu nekkee itam yaa ngi ci bu mu sëy yow euh, sa sëy day baax ah mm-hmm. day baax di nga suul alaaji bi mbaa alaaji bi suul la incha allah Sophia Thiam ah ma sister d'amour maa ngi lay nuyu di la bëggee di naan la massa coono ah. <laughs> parce que démb victoire bi ñëpp kontaan. ñoo ko dundandoo woon man ak yow def lu ñu saf moo tax baat baa ngi nii bañ na ne du nee na du ñëw. <laughs> waaw mais rek nu ñuy def rek il faut ñu doxal parce que chef de yi ah, ñoo ñu ko jaral il faut ñu ñëw bégal leen seen biir émission Takkusaanu Mbëggeel di am tous les jours incha allah rabi du lundi au jeudi de 17 à 18h30 ñu koy bokkandoog yéen nag ah euh, boo leen defee seen ay vidéo ba mu baax yónnee ñu ñu jàllal leen ko à l'écran duñ yem foofu itam dañ leen di may ay cadeau yu duuna duuna duun ku ci dàqle vidéo rek am cadeau tey nag ñu ngi fii ah Castor comme ni ngeen ko gisee chez Fa Vaisselle ah fas yéene rek xoolal dugg def benn visite bu ndaw rek ñu war leen vaisselle yi liñ leen ko waxee ah émission elle est purement commerciale et c'est pour vous ah. képp ko am produit boo bëgg fasal rek boo ñu woowee contacter ñu ñu fësal la ko aujourd'hui nous sommes chez Fa Aïcha salaamaaleykum noonu leen def ah boutique bi yaa ñi na di kan moo may dalal. merci beaucoup. <laughs> yow yaa may dalal Aïcha. tey moom dama lay bàyyi nga xaw a doxal parce que baat bi dafay fee newul. Mhm. waaw ñu bëgg rek euh, présente toi d'abord. waaw man la Sofia bu Fa Vaisselle fii mooy boutique bi boutique bu Fa Vaisselle mi ngi nii yegg si ngeen ci Fa Vaisselle. dalal bi bi neex na <laughs> alors mhm. euh, ce que mën waaw produit yaa ngi nii am nañ ay tailleur présentoir yaa ngi nii. Eh, boolu shopping yi voilà <laughs> yi ay sucrier la. Mhm. pot sucre ñoo nekk nii. Mhm. Euh, peñe fruit yaa ngi nii trois yi euh, tailleur yi shopping euh, yi lépp a ngi nii daal service de table complet bu waay bëgg boo ñëwee fa vaisselle di nga ko fi fekk mhm. yi aussi ay casse de thé la après midi nga defar sa añ teg sa ay kaasu thé yooyu yëpp mën na nekk yi aussi ay service de table la boutique baa ngi nii daal fii ci Castor fa vaisselle lépp a yomb waaye yi ay boolu 24 heures la ngi ñëw mi ngi noonu ñu ciy mi ngi noonu yi ay boolu 24 heures la mhm. day durer mën nga ci def añ yóbbul sa jëkkër bureau lim mën daal bari na lim mën daal bari na dressage teg ci sa table mi ngi noonu du tey day tàng moom day ñëw rek nga tegal ko doo nekk di tàngalaat uh-huh. gis naa fi xam waaw yi ay kaasu kafe la kaasu café mën na def café mën na def aussi thé ak petit jeune parce que am na ñoo xam ne bu ñu xëyee di ndekki duñu kii lu bari mën nañu ci mën nañu ci def lii daal pour bëggal alaaj yi la yi aussi ay shopping yu mag la pour def euh, buffet miche wi da nga ciy def xar complet def sa benn agneau def ci li nga bëgg am nañu aussi ay drap de lit paru de lit yaa ngi nii si ñun tout ce qui ñun fa vaisselle ñu ngi ci dañuy def ay meubles chambra à coucher salon bàyyiwuñu dara bàyyiwuñu dara pour suñ mbokk jigéen ñi rek kontaan. macha allah mhm. voilà yii aussi ay service boisson la. 31 pièces ànd ak bouteille am da ngay am tasse thé tasse à eau boisson coupe champagne. lépp loo ci bëgg rek am nañ ci ay différents couleurs yii yëpp ay couleurs la yow yaay xool rek boo ci bëgg. macha ah, service bi nag ñëwal ni mhm. service bi mhm. moom pour Saint-Valentin bi mhm. vraiment noir la am doré service de table complet y tout prix bi yomb torop ñu def ci xéewal parce que nag xam nga suñ mbokku jigéen ñi dañuy waajal Saint-Valentin bi nag bu baax nag. voilà mi ngi noonu ku ñëw faa vaisselle. am dañuy def promo prix bi cherul dara. te loo am ama nit yi dañuy gis boutique bi yaañ ji ñuy ragal. mais bu ñu ragal la ñu ñëw. loo am di nga jënd. loo am yóbbu. macha allah uh-huh. ay de lit xam nga lii nga yeewu suba teel wàcc sa alaaji teg ci tànkam rek de sa maase bi mu koy maase noonu rek jar na lu nekk. waaw yaa ngi nii. shopping yaa ngi nii nga def sa bougie ci suuf. teg sa affaire muy muy muy jóg ndànk-ndànk nga jël sa temps. waa yekkal goro yi waa goro yi tamit ci sëy bi lañ bokk. waaw duñ leen waruñ leen a fàtte sax nag. waaw <laughs> gis nga. plateau marbré wa si si marbré la plateau marbré la. Mhm. ah dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. dafa baax dafa baax ci sëy ay verre boisson yaa ngi ni mhm. Versace yu amul fenn boo ñëwee biir Favesa rek nga ko mën a amee qualité la du changer du def dara voilà. macha allah léegi Faa. Faa jege si nii tuuti ñu waxtaan. Euh, dañu nekk ci tàkkusaanu mbëggeel uh-huh. waaw war a waxtaanee mbëggeel tuuti uh-huh. ci forme uh-huh. ñu waxtaane ci waaw am na alaaji am naa alaaji ah waaw dama koy dund nag loofu moom dama koy dund voilà yee sama boroom kër nag bi ma koy xam loolu yàgg na parce que faa sëy rek la xam def na vingt ans de mariage du ay du ay fo sëy moom la xam mbëggeel nag dafa xew waaw ñëpp bëggante. Mhm. léegi mhm. proposition mariage bi nan la dikkee. daf ma xam xam nga ñëw suñu koñ de gis ma boobu maa gën a nekk jeune fii di tëb di dem ak ñëw xam nga mu naan waaw man daal xale bii daal daf ma nopp ma naan ko moo. waaw waaw waaw ma naan moo di tiitaru xam nga rek yëfu xale yëfu xale waaw mënul ñàkk. ci la affaire yi commencé ba léegi nii. mu mhm. ngi noonu. léegi ba tey yéen a waaw ñu ngi sëy macha allah yàlla di def jàmm. amiin amiin yaa rabbi. Euh, waaw coucou mon amour namm naa la monsieur Mbaye maa ngi lay nuyu di la bëggee di la xaar nag ci Saint-Valentin bi. macha allah monsieur Mbaye gaawal ñëw. gaawal ñëw <laughs> ah mi ngi noonu de. nga joxe adresse bi rek ak numéro de téléphone. waaw adresse bi mi ngi nekk fii ci Castor 8 13 côté Croix Bleue numéro téléphone bi 78 la 296 01 64 78 296 01 64. Castor rue 13 côté Croix Bleue boo ñëwee ba Croix Bleue daal boo wootee rek dinañ la indiquer nga ñëw ci boutique bi. machallah alors on était là chez Favessel allah bagage yaa ngi lool ah képp kuy sëy wala ku amagul sax ah euh, borom kër parce que dressage moom wax dëgg yàlla. <coughs> du pour kuy sëy dong ñëpp mën nañ fi ñëw te boo fi ñëwee loo am jënd macha allah adresse bi mi ngi nekk fii Croix Bleue euh, wetu Croix boo ñëwee boo wootee ci numéro yi rek. di boo fekkul sama assistante mi ngi nii sama doom Adja. Adja waaw ah Adja ngi nii de. macha allah. <laughs> vraiment bagage yi rafet na te yi xéewale na aussi ku ñëw daal ku ñëw di nga ci gis sa bopp ku ñëw di nga ci gis sa bopp loo am di nga am ci vaisselle yi parce que nit yi xam nga Sénégal tàmmuñ tam di gis boutique yi dañuy ragal mais bu leen ragal di leen dugg si te xam ne boutique bi seen boutique la seen boutique la mhm. <laughs> merci ah suñu doom jooju xam ni donn na yaayam mm-hmm. vraiment donn na ndeyam Aïda Patra ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram mm-hmm. di nuyu suñu xarit boobu nga xam ni petit petit Guèye petit Guèye doomu Géej boobu nga xam ni vraiment euh, fan zone organise vraiment sargal monsieur le maire boobu nga xam ne mooy Djibril Faye Djibril Faye bravo à toi Djibril fay mhm. merci beaucoup yow la nouveau maire baax ñi ñu ngi lay féliciter di la ñaanal xale bu am jom nga bu am ambition yàlla na la yàlla protégé ak say ñetti galon yàlla na la yàlla gunge ci liggéey bi mu oyof ci sa kaw Petit gay nee na il est derrière toi population ñi Géej yëpp Bargny Kippa Bargny Ndiolmane <coughs> Bargny ñëpp ñu ngi ci yow d'accord bu soobee yàlla di euh, nuyu tamit Baba Amdi mi ngi rafetlu émission bi